الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله ذي الجلال والإكرام مدبر الأيام والشهور والأعوام وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله قال جل في علاه واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala mu màgg mi moom mi boroom bis yi di boroom weer yi ak at yi ñuy seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala di seede ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla la yal na yàlla julli te sëlmal ci moom moom ak njabootam gu laab ga ak saxaabaam ya ba ba keroog borom bi subhanahu wa taala di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp di leen dénk mbokk yi ragal yàlla muy dénkaani borom bi subhanahu wa taala mu ñuy wax ni wattaqullah nañ ko ragal ndax inna allaha xabirum bima taamaluun yàlla de ku dañ kumpala ci lépp lu ñuy def mbokk yi suñu xutbay tey ñu ngi koy fas yéene amal ci période bi ñu nekk muy période vacances ana naka la ko jullit bi wala exploité ana lan moo ci responsabilité way jur yi ci gone yi ndax vacances la boo xamante ni si njaboot yi jàng ji woon ci école yi lu tolloog neuf mois ñoo am trois mois de vacances mu tolloog cent jours ana la moo ci responsabilité way jur yi ñu njëkk di fàttali ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi wax ci xadis mu ni ma min mawludin illa yuuladu ala alfitra amul kenn koo xamante ni borom bi subhanahu wa taala dénk na la njaboot lu dul ba mu la koy dénk ci njub la la ko joxe ci njub al fitra bu ñuy joxe misaal ci fitra mooy li nga xamee ni yaaka moom masalan sa téléphone bi nga moomal sa bopp boo ko tegee di ko jël loolu doo frustré wu doo tremblé wu doo am lenn luy rax ci yow ndax yaaka moom ci yow la bokk waaye booy jël loo moomul sa gis mooy njëkk a soppeeku sa xoolin mooy njëkk a soppeeku sa fit dimanche ndax li ngay def moo bokkul ci yow du ak njub loolu mooy al fitra moom la yàlla nag moo ñe doomu aadama dénk la ko te lim la dénk mooy xalifatullahi fil ardi mooy li représenté borom bi subhanahu wa taala ci kaw suuf ngir mu bañ a fee semeli li désordre atajalu fiha man yufsidu fiha loolu la malaaka yi laajoon ndax da ngay wàccee ci kaw suuf yow borom bi subhanahu wa taala koo xamante ni dafay semé désordre kon doomu aadama wàccam ci kaw suuf moom mooy tegu ci njub bi ko yàlla borom subhanahu wa taala bindee mu am ay mafuul yoo xamante ni yàlla da koo gàll ci wayjur yi bi ci njëkk mooy yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi wax ni yaa ayuha alladina amanu u anfusakum wa ahlikum naara ay yéen ni gëm njaboot gii ma leen dénk ni ngeen di fegalee seen bopp sawara na ngeen taxe ngeen fegal seen njaboot gii tamit safara bi maanaam ngeen teg leen ci yoon wi nga xamante ni mooy yoonu jub ba ëllëg bu ngeen muccee ci sawara ñoom ñu mucc yàlla na yàlla muccal leen mu bokk nag ci li njëkk li wayjur bi di xiirtal njabootam ci bu ñu dellusee ci année scolaire ñëw ci vacances an taxussuhum ala taalluq bi kitaabi rabbihim nga fexe loon xemmem loo leen bëggloo leen lii nga xamante ne mooy alquranul karim ndax alquranul karim boo ci xirtalee sa njaboot yaa ngi koy xirtal ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam wax ni hum ahlullahi wa xaasatuhu ñi nga xamante ne yàlla nee na ñii moom samay ñoñ lañ ci man lañ bokk ñii laa féetewoo ñooñu yàlla nee na mooy waa alquran yi wa xaasatuhu ñoom donc kon yaakaar naa wayjur bi bu fekkente ni dégg na xadis bi moom mooy dafa war a xirtal njabootam ci ñu dem jàng ji téere alquranul karim bi nga xamante ni foofu la yàlla wax ak ñun te mbokk yi jàng bi sa njaboot di jàng ji téere alquranul karim ak xam-xam bi nga xamante ni moom mooy li koy jëriñ ci kaw suuf loolu du choix ci way jur obligation la ndax talabul ilmi faridatun ala kulli muslim la yon saa salaam wax sàkku xam-xam xam-xam bi nga xamante ne mooy bi lay jëriñ fii jëriñ na fële nee na loolu du choix ci njaboot du choix ci way jur loolu obligation la ci nga tàggati sa njaboot xirtal leen ci waaye it muy occasion boo xamante ni way jur bi da cee war a jege njabootam bañ a livrer njaboot gi ci écran yi nga xamante ni moo xew ci jamono tey ñu def comme li yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan def ñi nga xamante ni ñoom la yoroon ci keppaaram ñu ngi jële ci Omar ibnu Abi Salama radiyallahu anhuma muy wax ni kuntu gulaaman fi xijri rasul sallallahu alayhi wa sallam man de ci ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaroon ma nekk ci keppaayam ci laa bokkoon ma doon ab xale ñu teg ab ndab di lekk nee na loxoom bi di di dem fu ne ci ndab li ndoxam bi di dem fu ne ci ndab li nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko mu ne wa kaanat wa kaanat yadi tatishu fi saxfa فقال لي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله نانا بلا ngay lek na nga wax bismillah gis nga muy première jàngat boo xamante ni jege bii la sa njaboot di jege ci vacances yi ngay seetlu ndax kii buy lekk nu muy lekkee muy ay sew-sew yoo xamante ni ñu bëri perte nañ ko seen njaboot ngir ber giñ leen di ber ber seeni njaboot moo tax mu ne yoon saa sam ko samillah tuddal yàlla waxal bismillah mu ne bismillah mu ne ko wakul bi yaminik na nga lekke sa loxo ndeyjoor bi kon càmmoñ la mel ni moom loolu lekkee te xoolal tubaab bi bu lay jox fu nekk ab lekk da lay jox fourchette jox la paaka léegi paaka bi ngay daggee ndeyjoor di cappee fourchette bi góor si lekk kooku nax na la génne na la ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ab jàngaleem bi mu jàngaloon wulaam bi mu ne wa kul mimma yalik te booy lekkit na nga lekk ci li ne sa kanam bul jël sa loxo di ko jël ba ci digg ndab li kon yii way jur bi daf ciy profité ci moment vacance bi nii di ci tàggat njabootam di leen ci yar ngir bu génnee ci vacance yi man cee jëlee li nga xamante ni moom mooy ay njëriñ aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala di julli di selmal ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xamee ni beneen yonent du amaat ginnaaw moom ñu xam ni doomu aadama muy wayjur bi investissement bi gën a rëy ci kaw suuf bi ngay def mooy sa njaboot yàlla di wax ni al maal wal banuun zinatul xayaati dunia alal gi ngay am fii ci kaw suuf ak njaboot gi la yàlla di dénk loolu poñetu àdduna rek ziina la walakin al baaqiyaatu saalihaat mooy nga fexe jël njaboot bi nga teg leen fii borom bi subhanahu wa taala wax ni tegal ma fii njaboot bi ci yoonu jub nee na loolu mooy li gën ci li nga war a def ci njaboot bi te nga xam ni investissement boobu noonu yow bis boo faatoo boo faatoo yom saa salaam mu ni ida mata ibnu adama in xata amalahu julli gi nga daan defal sa bopp moo doo ko defal sa bopp ndax faatu nga koor ga lépp loo xamante ni farata la woon ci yow lu lay jural yiw te yiw mooy alalu àllaaxira nee na dagg na ndax mënatoo ko defal sa bopp lenn rek wala bokk na ci yi nga xamante ni moo lay fekk ca fa nga tëdd sa bàmmeel muy ay yiw mu ni waladun saalih yadu lahu nga am doom ju baax joo xamante ne da nga koo yaroon jub gi la ko yàlla joxe woon nga sàmmal ko ko ba mu nekk ci ñi nga xamante ni ay royukaay la ñuy tege ci yoonu jub nee na kooku noonu ëllëg lum la ñaanal dalay fekk ca fi nga xamante ni fa nga tëdd sa barzax kon investissement bu rëy la ñu bàyyi xel nag ni borom bi subhanahu wa taala mu ngi waxaat ci alquran nii yaa ayuha alladina amanu ay yéen ñi gëm yéen ñi ma dénk njaboot laa tulhikum amwalukum wala awlaadukum an dicrillah bari nañu mu ni bu leen bu ngeen sàggane seen njaboot gi ci ñuy tege ci ci tudd yàlla di fàttaliku seen borom di xam seeni wareef li leen wàcce ci kaw suuf wa man yafaal dalika fa ulaika humul xaasiruun képp koo xamante ni def nga loolu le kooku de kooku mooy ki perte mooy ki perte kon investissement mooy nga fexe jël sa njaboot gi nga teg leen ci yoon bi nga xamante ni mooy yoon siraatul mustaqim bokk na nag ci li indi ifsaad ci suñu njaboot bi yàqute njaboot gi livré gi ñu livré suñu njaboot gi ci électronique bi bari na koo xamante ni tey danaan njaboot gi man sama njaboot du génn ci mbedd mi duñ dem fenn saa su nekk nga ni da nga leen di tëj ba pare jox leen téléphone huit heures neuf heures ngay nañ tëddi ñëpp dem tëddi nga fay lamp yi contrôle lépp nga jàpp ni ñëpp tëdd nañ fekk ñoom ñu ngi ci àdduna bi téléphone bi nga leen di jox ñi ngi ci àdduna bi lijjanti li ñuy lijjanti lépp boo xëyee suba nga jàkkaarloo ak ñoom ki ngay gis nii mooy ki ngay suuxat rek ci muy lekk di naan nga koy gis muy nekk ci wér-gu-yaramam waaye intérieur am tafu nañ ko bu yàgg yóbbu nañ ko bu yàgg ngir lan ngir li nga jëloon jox ko sa doom jàpp ni lii daal dama ko jox rek mu benn moyen boo xam ne àdduna fi la toll àdduna fi la toll mbokk yi waaye ak contrôle da bàyyi xel bu baax njaboot gi ci téléphone yi di leen bàyyi xel bu baax ci écran yi bokk na ci li nga xamante ni ñu bëri ñuy échoué muy ci examen wala lu mu mën a doon ba ci maanaam ñàkk yëg gi njaboot gi ñàkk yëg bokk na ci téléphone yi da ngay wax sa njaboot lu la yëtteel mu sëkk ci téléphone faw nga soññaat ko soññaat ko mu soog laa dégg kon yooyu lu jar a bàyyi xel la ci jumtukaay yi nga xamante ni bokk na ci liy këf suñu njaboot gi yal nañu yàlla sàmmal suñu njaboot gi teg leen ci yoonu siraatal mustaqim ba ëllëg ñu bokk ci nga xamante ni ñooy ahlullahi wa xaasatuhu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله dugg leen ci kanam ba saa